dafa rafet rek nag li ñu naan bay sa wóom fi nga dëkk nga tàmbalee fi sa projet su ko defee bu ñu demee ba ñu ne bis mi am na fu mu accédé mu bañ a bett waa ndax dëgg neexul ni ma ko tàmmee di wax ci laay delloo maa ngi nuyu sama waa kër maam waa kër maam jooju loo kii nga xamante ne tamit ñu di ko ñu rafetlu liggéeyam tamit macha allah tarkala muy sëñ Xaadim Lo boobu la bokk ñu koy ziar Lo Ndaam di nuyu Jobe Jobe Ndiaye Loto Ndiaye Yacine Ndiaye moom it jógee ba Mboro Awa Jaxate di leen dalal di leen sargal di nuyu tamit sama sœur. Yacine Mbengue moom it ñàkk di ñaan def déplacement dérangement ak sama borom bële nga xamante ni moom it mu ñuy jàppale biir biti lu ñuy tamit nga xamante ni nag il a toujours été à mes côtés faut pas l'oublier c'est elle que je par par elle que je devais commencer muy sama soxna tàccu leen loolu waaye. di beral tamit nuyoo. ñoo nga xamante ne depuis presque 15 ans 17 ans ba 20 ans du moment que j'étais à on a toujours été ensemble ñu nekk samay sœurs samay jigéen muy Séné Mbaye ak may mën a jóg damaa bëgg ngeen tàcc leen bu baax a baax ñoom it Kayar lañ jógee di nuyu tamit ki nga xamante ni euh, ci bërëb bi bërëb bi moo ko moom di chef d'entreprise ñu di ko bay Serigne Samb moom it yàq ko ci yoon bi dara mu ngi bay waaram ci côté entrepreneur entrepreneuriat chef d'entreprise créer entreprise am jël ay nit di leen fay chaque fin du mois et contribuer au développement du Sénégal et aussi faire chômage Bismi s'arroge la mission comme ni ma ko tàmmee di wax cri de guerre et un cri de cœur que j'ai l'habitude de prononcer à chaque fois que j'ai l'occasion d'être devant les médias. Bismi s'arrange la mission, comme les damels d'autrefois, de consentir tous les sacrifices possibles pour sauvegarder, protéger, émanciper notre territoire et notre cité. Notre arme de combat est avant tout la sensibilisation véhiculée par une musique qui touche les âmes xel day fàtt de damay dellu soit ci nuyoo bi dellu ci wax sama xarit sama rak ak sama frère ki nga xamante ne moom it ba ma nekk dama lay tuddee li nga xamante ne mooy bés bii ndax def na la maximum ci man def na ci alalam def na ci dooleem def na ci promotion ñu di ko Xaadim Samb dama bëgg ngeen tàccul ma Xaadim Samb bu baax a baax muy le président di mouvement Thiès solidarité Thiès rek moo ko ñor solidarité moo ko ñor jàppale doomu aadama dimbali néew di doole taxaw nag ñi nga xamante ni ñoo nekk dans le besoin di nuyu ki nga xamante ni nag sama xarit moom it ñu di ko Chikori mu ngi nii toog damaa bëgg ngeen may ko loxo bu baax a baax s'il vous ñëw def délégation teewee li nga xamante ni mooy bés bii kon je suis très fier de vous mesdames et messieurs vous tous qui avez fait le déplacement répondre à cet appel may nuyu ki nga xamante tamit mooy monsieur Habib Kane déedéet kooku kenn du dem mu des Habib Kane bokk samay parrain njëkk a gëm sama projet moom it ne yow xam naa la Cees waa nga ku gëm sa bopp nga liggéey rek nga gëm te li nekk ci yow gisuma ko ci benn Cees waa li ngay def ak plateau yi ngay taxaw gisuma benn Thiès waa bu fay taxaw di représenter le drapeau de la ville de Thiès et c'est très important de le signaler du moment qu'on est en de dire que des artistes sont des porteurs de voix ku mel ni Djali ku ni Dakon Amadi ku mel ni un Bismi qui est là très engagé et sans chaque jour que Dieu fait ñu ngi nekk ci côté culture di di ci bay seen waar di génne doomu aadama yi ci ay jafe-jafe à travers leur morceau à travers leur musique kon ñooñu defe naa ni Ceeskaay war nañ leen delloo jukkal ñooñu les gens les bonnes volontés les politiciens war nañ leen delloo ñu kër parce que xam ne ñoom seeni message mën de passer sans la l'accord de ces artistes la nit dina nekk ci ruxam am jafe-jafe bëgg ci génn déglu benn artiste dégluwaat ko ne mais ndakate man maa ngi ci ay jafe-jafe yu métti ah. maa ngi nekk ci ay goutte mais artiste bi li mu wax mais lii lu dëggu de mais dama war a delloo ci ginnaaw ndax lii solution la pour man kon defe naa ne ñun li ñuy def du ay caaxaan maa ngi leen di dalal di leen dalal di leen dalal balaa may gën a développé rek damaa bëggoon jël kàddu bi jox ko. dañuy rafetlu trop ci suñu teewaay fii ci turu réseau des enseignants de l'APR ndax lu tax ñu koy rafetlu dañu ñëw fekk fi jeune boo xam ne c'est un jeune très engagé. qui fait la fierté de Thiès. Comme ni mu ko waxee léegi dit, il a eu à représenter Thiès dans beaucoup de plateaux. Donc c'est une fierté pour Thiès. Quand nous avons vu qu'il y a un talent, nous avons collaboré avec moom ndax ci collaboration bi xëy na moom dina am fu ñu mën a féete ñu nit ñu am fu ñu ko mën a féete parce que bu ñu ko gisoon mu nekk ci loo xam ne du noonu kon du ñu wu ak moom mais vraiment mbégte la ci ñun réseau des enseignants ñuy collaborer avec notre frère Bismi comme li ñu wax rek mi ngi ci yoon bi te comme ñoo bokk Thiès am ñu bëri yoo xam ne ñoo ko bokk looloo indi gën a jegante bi li ko gën a indiwaat aussi mooy génneel na single suñu première dame te première dame daa nekk koo xam ne dafa spécial bu taxee moom muy def rab ba pare am courage génn génne pour la première dame dañ koy saluer parce que kat rab nekkul ne dangaa war di sànni rek boo gisee nit di def lu baax nga ne lu baax loolu dama koy fësal kon ñun loolu dañ koy rafetlu donc daal bis mi ñi ngi koy ñaanal ca kaw ca kanam merci beaucoup euh, moom moo ñu dajale fii ci centre Prestige bu ñëw fi pour lancer li nga xam ne mooy benn son bi nga xam ne daf ko def ci première temps bu ñëw aussi ba ci waa Thiès solidarité boole leen ci li nga xam ne mooy parrain yi ñu rafetlu ko lool di wax ne. dafa am lu ñu jëflante ñun ak Kébir Dame suñu fondation loolu moo gën a waral bu bis mi xewlee lu mel nii te jiwu bi témoigné ko te am ndaxte fii ci Cité Niass dafa am benn daara ji fa nekkoon borom daara ji nekk yàgg ba moomul foofu ci loolu ñu ngi ci def ay démarches ba dugal ko sur le net yàlla def Première Dame gis ko Sénégal nekkul Côte d'Ivoire woote réagir ci. vraiment mu nekk acte boo xamante ni daf ñu marqué parce que damay faral di wax ni lépp lu yeneen doomu aadama di def rek waa Thiès dañ ci war a jiitu boo gisee ñu créé Thiès solidarité newuñu Sénégal solidarité dañ ne Thiès parce que suñu leeroon ni Thiès waa yi nekk fii jafe-jafe yu ndaw yi nga xam ne askan bi dañ koy am mënuñu ko satisfaire kon bu ñu créé Thiès solidarité te dañuy faral di gis ñu bay dañuy bàyyi fii di def ay Dakar di wut ay ndigal donc maa ngi lancé appel Thiès waa yëpp ñu gën a jàppale yi ñu gën a jàppale ñi nga xam ne dañu sonn ñu nekk ci hôpital yi ñu nekk ci prison bi ak ñëpp ñoo am jafe-jafe parce que c'est très important loolu moo waral tey bi loolu amee mu nekkoon acte bu ñu ci sant aussi bés mi ñi nga xam ne vraiment dafa nekk. nit ku engagé ci wàllu culture culture aussi bëgg nañ ñi nga xam ne mooy les autorités ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu Thiès bu jàmm parce que Thiès culture daf ci dee Thiès culture dund fi te yaakaar naa ne bépp artiste bu ma sa réussir rek dan la wax ay Thiès nga dem Dakar ba ci théâtre kat yi fi nekk nga xam ne ñooy def actualité au niveau de Thiès ñun ñi ci gën a xam ay soirée de vent ñoom saa neex artistes yi fi newoon ñoom ñëpp bu ñu bëggee réussir da leen wax ak génn leen Thiès bi ngeen réussir te je crois que ne tey loolu wax ju yàqu la war ñu mën a nekk Thiès réussir ci kaw ñi ŋànk dëkk bi ak les autorités yi fi nekk mën a jàppale artistes yi ñoom ñoom bis ni war a jàppale nga xam ne dañuy xeex ngir développé Thiès comme daan kon bis ni ñu ngi lay remercier bu baax ci turu Thiès Sauvegarde bi di wax ne gars yëpp ñu ngi lay jógee gis nañ sa liggéey rafetlu nañ ko bu baax a baax maa ngi nuyu aussi sama mbokk journaliste yi nga xam ne man yàlla moo ma boole ak ñoom su may xarit la ñu ñoom ñëpp ñu yàlla boole sax ba fii waaye tey bu fi dajee dafay rafetlu ma seede loolu di remercier aussi Baye Serigne Sam bu baax ci engagement bi mu jël ndaxte dafa ñëw investir en tant que Thiessois te damay faral di wax loolu c'est très important terewuma kenn jël de mais man de su ma gisee benn Thiessois investir di Sénégal je préfère mu ñëw doole te maa ngi koy lancer appel Thiessois yëpp nañu jàppale suñu nit yi fi nekk te xam ne Thiès bu doon tàkk Thiessois yi donc ñun ñoo ko mën a fay maa ngi sant ñëpp di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulah. mu nekk une femme ambitieuse gëm li muy di jàppale son excellence le président Macky de son côté ndax su ko neexoon kat mu ni man première dame laa su ma neexee ma toog palais croiser les bras mais déedéet defu ko dane damay nekk dans la social dans le développement dans la santé damay dem fin fond du Sénégal afin de soutenir les Sénégalais les Sénégalaises qui sont dans le besoin dafa ni moo xam ñu nekk Dakar wala Tambacounda wala Dakar wala wala Fatick ça dépend du Sénégal région bu nit mënti nekk woo ma fa man dinaa ko wuy léegi nag ñu gis ne mu ngi dimbali néew du doole de son côté mu ngi jàppale askan wi mu ngi soutenir jigéen ñi mu ngi jàppale les artistes ñi nga xamante ni dañoo tawat mu ngi leen di dimbali ak ñeneen ak ñeneen. mais loolu ñun bu ñu ko gisee en tant que porteur de voix parce que xam na ne bu ñu ko waxee ñu bari dinañu déglu y aura le positif et le négatif mais ñun dañoo jël rek le positif teg ko suñu kaw jiital ko ne suñu ginnaaw bu ñu gëstu bi côté boobu c'est la positivité de nos chanson mais y a de ces yoo xam ne nit ki bu ko dégloo danaan est-ce que bis mi mooy wax est-ce bi ma déggoon muy wax ci Marième Faye Sall tey jii mooy wax lii te tey nag damay wax loolu jëmale ko ci ñi nga xamante ni dañuy wax ne dañoo gëm président de la république te nekk Thiès ñiy woote ne dañoo gëm première dame du Sénégal te nekk Thiès non bari na autorité yoo xam ne dañuy wax li ñuy wax gëmuñu ko déedéet non je te jure parce que du moment qu'un artiste a sorti un single pour le président de la République, pour la première dame du Sénégal, et aucune de ces, pers aucune de ces personnalités n'est venue à notre rencontre nous féliciter. Tout simplement une lettre de félicitations, c'est ça qu'on a besoin. Mais actuellement, aucune de ces personnalités n'est venue vers nous nous dire que bismi félicitations. Le message là, j'aimerais que la première dame du Sénégal l'entende, que le président, le président Macky Sall l'entende. Thiès genn wàll autorité yëpp yi fiy wax naan dañoo gëm Macky Sall gëmuñu ko seen poos moo leen fi nekkal seen i intérêt kese la ñuy la là c'est le côté négatif de bis bi bari na ñoo xamante ne dañuy sóob ils ne disent la vérité dañu naan président de la république lañ bëgg te président bu wootee woon na suba day ñëw Thiès ñoom ñëpp koo ci gis yor ay pancartam yor ay t-shirtam bëgg nekk au devant de la scène mais loolu affaire nu ma ko mën a tuddee nit warul mel noonu c'est de l'hypocrisie képp ku jëm gëm Macky Sall képp ku gëm première dame du Sénégal bis bi génne benn produit te kenn ci ñoom jugul ñëw ci man ne ma félicitation jox ma ñaari loxo ne ma sawaay li nga def nice na ñi ma ci mën a cité kan lay doon Habib Kane ba ma defee sama projet ñëw na ne ma sawaay je ne fais pas de la politique je te soutiens en tant que frère parce que sama frère nga da gëm sa bopp ma gëm li may def ma nit je fais la politique de développement Khadim Samb mii tamit la même chose parce que doo fi nekk di raay raayal non non non je vais pas le faire je suis devant les médias et j'ai pas froid aux yeux waxal xam nañ seen bopp ci gëm président de la république gëm Macky Sall ñenn ñi dañu taxaw ne bis bi day politique mais man ne politique. baaxul ce sont ces instances là sama traite politique moo ci nekk parce que sama maam Aji na njaay moo faloon Ousmane Ngom sama maam Ade Aji Kine Ndiaye nday sekk signature bi ngeen di dégg tey doomam Aji Kine Ndiaye sama maam a ko yar mooy ki nekk États-Unis sama maam lañ ko tuddee moom kon man du ma nekk fii di jeter de fleurs taxawma pour tagg doomu aadama mais pour def lu baax am naa sañ-sañu wax ko ñenn ñi seen intérêt moo lañu fi nekkal ñenn ñi bëgguñu président de la république gëmuñu ko seen bopp rek ak seen yi waa kër la ñuy toppandoo ku leen wax ne bis bi génne na benn produit la moindre des choses sax nga ñëw félicité ko la moindre des choses nga jël sa téléphone tu as numéro nga ne ma mais bis bi ce que tu as fait là j'apprécie ba ma ko defee waxanteeg waa fondation Servir le Sénégal qu'est-ce qu'ils ñan ñoo la soutenir waa Thiès ñan est-ce que dem nga ci diw est que dem nga ci diw non foofu su ma waxoon day garaaw non dama rafetal billahi wallahi dama rafetal dama ne non euh, ils sont en train de voir avec moi on se concerte aram amul amul su ma à part Khadim mii laa wax à part euh, Habib Kane j'en passe Habib Niang c'est des gens même le le minimum nga woo nit ki félicité ko ne ko mon frère ce que tu as fait parce que je suis là uniquement pour soutenir son excellence de président Macky Sall dans son plan Sénégal émergent émergence bi fu muy commencé mooy suñuy xol ñu yaatal ko ma tamit duma bàyyi ma mooy wax leneen parce que damaa dëggu ci li may def je m'engage damaa dëggu ci li may def parce que damaa gis ñoom li ñuy liggéey mu am solo trop muy enseignants yi ak enseignantes yi plateau bu ma dem plateau bi ci gën a grave mooy bi ma njëkk dem 2STV bañ ma waxee dama da ngay sambay bàyyi ma ne ko le ak wala caravane passe nit ku nekk la nga gis rek la ngay bëgg a gis ci nit ki da nga naan fekk ne am na leneen lu am c' est parce qu'on a vécu c' est parce que am na ci ay jaar-jaar léegi nag ñenn ñi li ñuy bëgg mooy bu ñu la defalee lu baax salaamaaleykum maaleykum salaam nga nekk di seen i seen i seen i mbir salaamaaleykum maaleykum salaam foo tourné di leen tudd déedéet. c'est réciproque c'est quelque chose que tu as fait dafa am aller am retour mais il préfère être parrainé dans d'autres manifestations yoo xamante ni dañu fay sànni seen alal bu jeexee jeex na mais un artiste koo xam ne am na certaines prérogatives il a tout le temps les possibilités devant d'être les médias il a tout le temps les possibilités de faire des playbacks devant un milieu devant une foule de personnage koo xamante ni kooku tout le temps il y a toujours il a toujours micro kooku defee naa ni war nañ koo delloo njukkal kooku war nañoo prêter attention ci moom xam ni kii kat il doit être toujours accompagné du ñàkk nag baax ñu xamante ni jàppewuñu muy xaalis ki may remercier muy Aliou Badara Diouf nekk inspecteur cadastre sama nit la c'est un ami sama grand la bi fi ñëwee ba tey nee naa ko man de vos portes sont grandement ouvertes ci man bopp yàgg naa ñëw ci bërëb bi dee mais musuma xam sax bureau bi nan la mel mais tey ji dama fiy ñëw dugg fi aisément am fi benn euh, liberté boo xamante ni du ma yàq mais mën naa indi samay nit présenté la parce que ils ont besoin de si et de cela bu lëg lekkee alors na ko gërëmee am na ñoo xamante ni je ne peux m'empêcher de les citer parce qu'ils ont fait quelque chose pour une personne ou pour moi dans le temps et aussi c'est réciproque parce que tu as déjà fait quelque chose pour eux et ñoom it ñu retourné fay la muy kan muy Abdoulaye Dieye moom it dañu wax mention spéciale de son côté mu ngi bay waaram mais à part presque ces gens là à part Ousseynou Diouf moom it mu ngi ciy bay waaram léeg-léeg nga tudd nit ñu yaakaar ne daa jox ay milliards déedéet c'est parce que da ngeen a am jàmm ak salaam fa mu la féete koo xamul na koy def nam la defa tax dama bëgg ngeen seen bopp ba gis waay ndax xam naa dina tàng mais damay remercier mbooloom personnage yi fi teew Maty Senghor les enseignants les enseignantes réseau bi yéen maa leen di remercier kontaan naa ci yéen aw ma seen fay. Chikori je suis tellement fier de vous Sene may mën a kontaan naa ci yéen waa Kayar ëttu maam jooju loolu bëgg naa ci yéen. Joge Ndiaye Lotte Ndiaye Yacine Ndiaye Awa Diakhaté yéen ñëpp maa ngi leen di wax mention spéciale excellence maa ngi tout ces chances tous ces chances là. toutes ces grandes personnalités là vous êtes des grandes personnalités pour moi ndax vous avez fait des kilomètres et des kilomètres pour venir jusqu'ici au Prestige diggante seen kër kilomètre la ci man di gërëm samay soxna sama sama soxna waaw kooku euh, bu baax waaw tarkal la macha allah macha allah ndax on est tellement compliqué nous les artistes dañoo jafe dañoo metti ay bagages dañuy guddee soxna si mën na maa teewee des fois dañuy guddee loolu du ñu comprendre bu fekkee ne dañoo nekk ci liggéey bi nekk ci ittee ma famille aram ndiir sama goro maa koy bëggee yaasin yéen ñëpp nous sommes tous de la même famille mënuñoo tàggalikoo muy les les journalistes parce que sànq damay wax ak yéen ne leen on a toujours été ensemble vous et moi dañoo yàgg di liggéeyandoo boobu conférence amagul nit mën na la fekk ci bërëb jël la liggéey bu am solo ngeen di def dañ leen war di jox saa su ne de millions et des millions ku fi siiw ku am possibilité exprimer wu c'est grâce à vous ñenn ñi dañ leen di ñàkkal fayda comme ñun may ñàkkalee fayda mais ils ont tort parce que yow bu dee da nga ne tu es une grande personnalité mais jëlal micro bi nga dugg ci oto nga wër est-ce que les boo jëlee micro. yàpp sa matériel yàpp ko ci oto ne da def sa publicité sonore nit ñi dañ la xàqataay ku ci nekk la mu moom da nga koy jox mention spéciale aussi à Vieux Vito moom it des ñu xaw a jaxasoo c'est un ami qui vient des États-Unis est venu qui s'installer à Thiès organe de presse yëpp mënu ma moo xam Sud FM TFM RFM ñi fi nekk. Euh, yéen ñëpp mënuma citer ku citer da ngay juum ku ci nekk yaa ngi bay sa waar parce que c'est pas l'argent tout simplement déedéet non non non c'est pas l'argent tout simplement la solution mais am leen teg nit ki dem la teg moom tey mën naa la soxla de mais ëllëg si biir mën na ma soxla parce que lii j'ai pas l'intention de rester dans le là non non non ceci incha allah dinañ ko def Dakar te su boobaa xam naa ni le peu de personnes ñu ñi ñëw fii du mën a déplacer ñëw Dakar.

Du moment que j'ai commencé à répondre à ces mais ils m'ont di mais toi là, tu as une voix radiophonique. ma bàyyi bu sedd ba ñu pare ku ci nekk yaa ngi naan ma Guelone Ngalla ngi nii kii kii a ngi kii kii a ngi nii il faut que tu viennes à Dakar ma ne leen loolu dina ñëw parce que dama bëgg am lu ma réaliser à Thiès pare gëm ko ni ko bàyyi Serigne Samb gëmee gëm ko ni yéen ñi aussi ku ci nekk yaa ngi bay sa waar fii à Thiès tant que yàlla tuddul la li nga génn dem feneen ak feneen du mën a sotti na ni mois bi je devais être normalement en Angleterre c'est des projets qu'on avait déjà entamés mais suñu borom moo dogal ne loolu warul am benn morceau la ñu dégg ci samay morceau de ki yóbbu Wally Seck tey jii ma jot fal gar mi ma révélé leen ko tey ñoo waroon ànd tey ma war a def première partie bu sëkk ba Bambino sama benn son la dégg bi muy bi mu koy dégg mu ngi ak Dame Sène ngi nekk foofu Angleterre da koo dégg ca neige ba ne ma sawaay yow tu m'as convaincu avec un seul morceau avec une seule chanson li may wax du ay caaxaan man je pèse mes mots